العزيز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 di jiital ci nuyoo beeg ziyaar bi ak ndokkeel yi fadila cheikh mouhamadul muntaqa mbàkke ibnu cheikh mouhamadul xalifatul am de tarixatul muridiya di ñaan sunu borom gën a dëgëral taxawaayam te guddal fanam ak mboolem njabatuk cheikhul xadim gi dañu ak ànd moom di ci tegit cheikh mouhamadul sëñ abo mouhamad ibnu Cheikh Mouhamadul Maamoun moom mi nga xam ne tey jii moom la sunu borom dogal mu toog fii jotaayu Cheikh Mouhamadul Maamoun di ko nuyu di ko ziyaar di ko jox wàccuwaayam di nuyu mboolem jabatuk sëriñ Modou Maamoun gi waaye mboolem jabatuk Maam Cheikh Anta gi ñi ngi yëkkati sunu kàddu ci turu sëriñ Mokhtar Silla ñi gën koo xam ci Serigne Jaga Silla imaam moom mi nga xam ne yàlla dogal na. Mm, fii ñu fii ñu koy waxee moo jiitee njàngum arxaan mii nga xam ni moo leen fi tax a ñëw di ñaan sunu borom gën a yàggal taxawaayam doolu ko ay xéwal ak i ngëneel waaye di nuyu mbokk yi nga xam ni liggéey bi ñoom la ko sëriñ bi teg ci seen loxo te di ci jiital Cheikh Mahamadul Mamoun Silla mii nga xam ni moom lañu fegool ci jotaay bi di kenn ci njabootu sëriñ bi Euh, mu toog fi toogaayu sëriñ bi nekkal ko ci liggéey bi waaye mi ngi ko seq ay kilifa ay mbokkam ñi di ko jàppale ci liggéey bi ñi mën cee tudd sëriñ As Mor Dia ngeen seen ko nii mu toog lang ak sëriñ Modou Mamoun mën cee tudd Cheikh Mouhamadul Bachir hmm? waaw mi ngi dend sëriñ Fallou moom di rakk sëriñ As waaye liggéey bi mu ngi ko seq ak it ba tey Cheikh Mouhamadul Bachir Sakho imam ak sëriñ maam Balla Gueye ak sëriñ maako Jong mi ngeen gis sunu wet ak euh, Serigne Mokhtar jum ak mboolem daaray kaamil yi nga xam ni eh, ñi ngi ànd ci liggéey bi ci di leen jàppale ci taxawaay bi waaye ñi ngi leen di tatagal yéen ñi nga xam ne yéen a fi ñëw di rajo Salaam TV ak Salaam FM di rajo Serigne fallu Gala Sill ñi di ko di ko jox wàcc waayam euh, moom mi nga xam ni lii muy def boppam da koy defal ndax taxawaay bii ñi ci rek moom la ci am ëppalewuñu ko ci genn wàll ndax dëkk bi dañ ko bokk liggéey bi ñu bokk ko mu bokk ci ñi nga xam ni wax dëgg yàlla yàlla dogal na wéy juróom bokkoon ci ñi daan taxawu liggéey bi sëñ Cheikh Sylla sëñ Mokhtar mi nga xam ni moom moo liggéey bi wax nañu taxawaay bi ci wéy juróom amoon kon tey jii bu bokkee ci ñiy yaatal liggéey bi ak liy xew ci dëkk bi loolu kenn du wax ni jomm na ko kon dañuy ñaan lépp lum ci yéene rek sunu borom gën ko cee defal tawféex xam naa kàddu yi nga xam ne moom lañ doon yëkkati dañ koo yëkkati rek di ko ubbil sëriñ Modou Mamoun eh, moom mi nga xam ne yàlla dogal na tey jii moo jiite liggéey bi. bu ñu dellu see ci njàng mi ñi nga xam le ni ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ni ñu xamee mbirum sëriñ bi rek sëriñ bi moom sunu borom daa nangu léppam. barkeel léppam moo tax muy wax ni sama tey ju ne day gàcceel sama démb mooy lépp loo xam ne ñu ngi koy woote te sëriñ bi tax koo jóg saa su nekk da ngay gis ni ak yokkute lay am loolu moo feeñ ci liggéey bi nga xam ni e, barkeel gi dëkk bi barkeel Daaru Salaam barkeel ko sëriñ maam Cheikh Anta Mbacke nekk ci liggéey gu nangu loolu feeñ na ci biir liggéey bi ndax sëriñ Mokhtar Sylla mi nga xam ni moom la yàlla dogal ñi jiital ko ci liggéey bi wax nañu ci laamiñu boppam ñu dégg bu yàggul mu diñu xamal leen ni gannaaw sëñ gaawaan njàngum kaamil biñ njëkk a woote fii ci njàng mi sëriñ Modou Mamoun dafa waxoon nañu jàng limu ati sëñ gaawaan loolu sëriñ bi wax na ko ne keroog limu ati sëriñ Modou Mamoun lañ jàng limu at ya mooy juróom-ñaar fukk ak juróom wax nañu moom lañ njëkk a jàng ci kaamil yi fii gannaaw sëñ gaawaan juróom-ñaar fukki kaamil ak juróom. juróom-ñaar fukki kaamil ak juróom la ñu njëkk a jàng ci limu sëñ gaawaan ci ci ati ati ati sëñ gaawaan yi gannaaw gi it mu ne nañ ko def nañ ci dolli e, saare yi arxuaan yi nee na ñu ci téeméeri saa téeméeri kaamil ak fukk ñeent. ci lañ njëkkoon a jàng nga xam ne at mu njëkk ma juróom-ñaar fukki kaamil ak juróom la wax at ma ca topp ñu dooli ci eh, eh, limu saar mooy doole nañ ci lu tollook téeméeri kaamil ak fukk ak ñeent nee na at ma ca topp sëriñ Modou Mamou nañ ko jàng limu jeysun ñu jàng ko ñetti téeméeri kaamil ak fukk ak ñett nee na at ma ca mu ne buñ ko wutul lim buñ ko wutul lim boobu nag daa mel ne daa dugg ci atum ren mii boobee la tàmbalee di yokk rek ba lim bi kenn xamul fu mu toll luñ doon wax matul woon téeméer léegi mu àgg ci ay junniy kaamil loolu wax dëgg yàlla xam nañ ni ñaan gu nangu la ndax buñ ko tënkee ci ñetti at yu mujj rek atum 2021 bi liñ ci jot a jàng toll na ci juróom-benn junni kaamil ak téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn 6146 kaamil 2022 bi liñ ci jot a jàng ci kaamil toll na ci juróom-ñetti junni ak téeméer yu manqué benn. muy huit mille quatre-vingt-dix-neuf kaamil atum at mii jàll rek muy 2023 bi moom it jàng nañu juróom-ñeenti junniy kaamil ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar muy 9607 kaamil te rafet nañ jot ni atum ren bi it mooy raw ndax boo xoolee démb mooy bis bu njëkk bi te démb liñ jot a jàng ci kaamil mant na junniy kaamil ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn 1476 kaamil jàng nañ ko. waaye loolu lépp nag buñ koy wax ñu ngi wax rek barkeel gi nga xam ni moom la liggéey bi barkeel te xam nañ ni benn kaamil bu ñu jàng rek bu ko sunu borom nangoo àdduna ak alaaxira ñëpp xañ nañ ci kon rafet nañ njort ni lim yu bari yooyu li muy bari bari yaakaar naa ne sunu boromit doon te benn la ci nangu wala ñaar sax loolee ñëpp xañ nañ ci te rafet nañ njort ni lam ci nangu dana ëpp loolu ndax ñi koy jàng di ko saytu. Euh, ay sëriñ daara lañu waaye ay dongo lañu yoo xam ni mën nañ ni tollaguñu ci war a ami bàkkaar bañ di leen ko bëgg bindal kon ak rafet ji dañuy ñaan daal sunu borom gën a nangu liggéey bi tey jaajëfee rek sëriñ daara yi nga xam ne ak mboolem fu daara jóge rek dikk di wuy si wooteeg sëriñ bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfe ci turu sëriñ bi tey ñaan liggéey bi daal ñu yàgg koo ànd tey gën a soñ sunu bopp di ci gën a soññi ñëpp rek nga xam ne li ñuy def sëriñ Tuubaa lañ koy defal nañ ko gën a wagar te gën koo sellal te taxawu gone yi waa kay jërë ngeen jëf yal na yàlla gën a barkeel liggéey bi. waaw kay jërëjëf sëñ Omar jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. noonu nga ko waxee rek ñoo ngi feddali kàddu yi nga waxoon ci di jotal ay nuyoo ki ziyaaraat ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa ayyadahu llahu tabaraka wa taala wa nasarahu di ko siyaar di siyaar sëriñ Abou Mouhamad ñaan ko suñ borom yàggal moom itam ci dëgëral ko di am mbégte nag ci teew gi nga xam ne moom ngeen teew si ci ndigalul sëñ Fallou Galas mi nga xam ne mooy seen kilifa euh, noonu ko sëñ Omar waxee rek euh, commission bi nga xamee ñoo yore wàllu njàng mi nga xam ne sëñ bi da koo teg ci seen loxo yàlla dogal na ñenn ñi teew si nañ fi waaw kon nag lu ñu am lu rek di leen sant euh, di leen gërëm ci seenub teewaay naa bu fekkee am na ci am te kon lu noo xam ne moom lañ ciy dolli rek mooy ñun ko séqal daal ci liggéey bi ñuy ñëw di jàng si fekk ñu ngi dégg suñu kàddu ñu leen di gën a soññ rek ci ñu gën a góorgóorlu ak di soññ ñi nga xam ne ñoo ñëw di jàng si gone yi ni yebal ñu gën a am ak dal ak yar ak teggin di gën a saytu liggéey bi bu baax a baax a baax muy gën a seel ñu leen di sant bu baax nag macha allah démb ba tey macha allah liggéey bi ràññiku na lool mel na ne nam daan ndoortee nii mu doora ren mel na ne moo gën a am doole ci niñ ko jàppe waaw léegi nañ ci continuer rek parce que ni ko sellal yemee ko kanam sant nañ bu baax ñoo ngi nuyuwaale suñu Omar Kañ ko suñu Omar moomu Kañ mu di wax ak yéen kenn ci commission bi waaye sëñ màkk jong mi ci suñ ginnaaw ak sëñ muxtaar juum la ñoo xam ne ñenn ñi rek ñooy ñu fi teew waaye am na ñoo xam ne teewaguñ woon ñu ngi am mbégte lool xam naa magu dar salaam nag xam naa da ku ciy wax ak njàngum alxuraan da maam li ko gën a waral mooy berndeel mooy cosaanul màggal gi berndeel nag kuy berndeel nit waa baax dafa mel ni ëpp solo ci bendeel ko mooy jàng ko alxuraan loolu mooy sababu alxuraan ji nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy jàng naa li ma ta leeralaa tuuti rek mooy histoire Darou Salam màggal gi màggal gi bu la doon laaj danga nga naan lislaam bépp ko moom ndax mooy bis bi nga xam ne ci la lislaam amee manoore ci la buñ doon xam li ñuy wax anniversaire anniversaire lislaam mooy màggal Darou Salam boo gisee borom gaawaan fonk ki ko fonkoon ñaari mbir dafa taxawoon ci kanamam mbégte moo xamante nii képp koo xam ne da am sa mbokk mu mel ne dafa dañ koo sànki ba mu mel ne yaa ngi ragal ne dootoo ko gis boo ba gis ko sa xol dina sedd guy waaye lislaam yi nga xam ne amuñu loolu lislaam mu wóor ne ne bul woon ak wëlbatiku sëñ bii kon lislaam dana tumuraanke lool lislaam taxaw gum taxawaay dëgër gum dëgëraat loolu mën naa yóbbu sëñ bi ci ñaari mbégte yooyu moo tax nganam googee lu ne rek def na ko ñu sant ko yàlla suñ borom ci mbokkam moomu jël si waat jamono ak lislaam taxaw gi nga xam ne taxawaay la léegi li matoon wax sëñ Omar wax na ko ñoom fi toog ak sëñ Asmor Dia ñoom ñi ñoom ñëpp ñuy seere waxtaan ñoo di see mën a wax nag sant sëñ Fallou Galas nu ko jottali ay nuyoo bu baax a baax te ñoo ko suñu amal waxee rek fii mu teew euh, kërama yaakaar naa bu fi teewee war na fee teew euh, kon ñoo ngi koy ñaanal rajo bi mu jëm ca kanam suñ borom dooleel ko ba fu ngeen bëgg a àgg rek ngeen àgg foofu seen kawe seen jot ak jërëjëf sant nañ leen bu baax ñoo ko suñu amal amal wax nag dañ fee toogal suñ kilifa rek suñ muxtaar moom lañ fi toogal ay kàddu yi ñuy wax ay kàddoom la jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah